toppe yàlla bëggal ñu lu baax li ëpp nag mooy àdduna gi ndax addis boobu ñuy fàttali kulluhum raahin wa kullu raahin masulun an raayatihi suñu way jur la tàmbalee ñu dund si lislaam ñu jàngal ñu laxdër yu jàngal ñu risaala tegtal ñu nañuy fexee ba doon ay doomu jullit waaye bu dul woon daje bi ñu dajeeg Cheikh Béthio daje boobee ay musulman nee la doon ku mel man mooy li xew rek musulman pratiquant su la neexee nga ni dangay ngay pratiquer su la neexee nga ni non pratiquant ci loolu du diine benn yonent wàccoo ko diine joo xam ne la neexee pratiquer su la neexee bañ pratiquer amut Sëriñ Béthio moo tax ba ñu fier si di wuyoo ay jullit ndax dañ koy jëfe di daw lu bon si kem kattan mu saxal ñu nag si ndigal mooy fu ñu toll ñu rek suñu xasaay di durus ak di jéem mokkal raar na fooy dem mu samp fa daara waxuma Sénégal gi rek université Dakar ak Ndar mhm. jokkare endam daara Liberté 1 boo demee Thiès dem Grand Médine dem ba fa laa di guddi àjjuma nga dem Géejawaay wala nga dem Ndar te doo fa fekk ay ndaw yoo xamante ni ñu nga sa école ba waaye mokkal nañu xasiday Serigne tubaa yi mhm. bu kooraa coupé ñu wéy di ko jàngale mhm. di ko jàngat duñ ko xool loolu Cheikh Béthio tax ñu ñu te jëpp di waxtaani Serigne Touba màggal di fiin toll ñu ngi si sëñ Saal ndigal ba ñu màggalee ba sa ëllëg sa Babacar Diouf diwriñu Amérique universel moom la jox màggal gi bëgg sëriñ Béthio ndigal li mu joxe woon si ni màggal nañu bàyyi di ko wàcc si ay weer waaye nañu koy wax ak tàmbali na ko bu yàgg loolu daje bii moo waral bis bi sëñ Tuubaa ni bisama ñu koy wàcc at gàmmo gi xasida yi di dox mbokk di liggéey ngir dimbali suñu waajur teral leen waaye nag di joxe addiya di liggéey ngir jekku ndigal ndigal loolu nga xamante ni mooy maye ngërëm ngërëm loolu wax sëñ Abdoulaat Mbàkke jàmbaar ja gaynde ga ni ngërëm loolu mooy taxat bu ëllëgee sëriñ tubaa bu ñu àttee ba ñu yàlla joxoon cër mbooloo topp leen ci ndigal rasulullah yi ñuy ramm morom jamono yi bu ñuy woote ku ney def la nga man wane sa kattan ak la nga liggéeyal yàlla bu ñu woowee sëriñ tubaa nee na murit saadix yi amoon ngërëm ñooy jóg di def loolee ñooñee di def muy ramb loolu waxi sëñ Abdulaat la te nee na bis boobaa ku mënoon loolu sëriñ Tubaa di nga am gàcce loolu la koy maye mooy di liggéey sëriñ Tubaa si digal yoon woowu di 17 avril bii moo tax ba ñu tegu si jërëjëfati Cheikh Béthio woote boobu nag nee naa la dafa ñu daan digal ñuy wër télé yi di wax li bés bi ëmb ba waral cant gi sëñ Saaliw nee na ko ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana mbuur la ko waxee woon si këram googu nga xamante ni coosi ouest la ne sëñ Mouhamadou Moustapha jàmbaar ja gaynde ga ki yóbbu raay bi Touba ba jamono jafee Touba daanaka kenn dëkkewu ko Touba googu nekk te jii première ville ndax departement de Mbacké nee nañu si recensement yi mujj mooy département bi ëpp nit ci Sénégal te mbakki Touba tax mhm. sëñ Abdou Lahat ni ay wolof la toog na fi nit di jàpp nit ni la dimbali ma di taawu njàpp ma ngir naan nit di wëgg juram aw fas mun la dimbali ma nit ñi la dimbali ma desalal ma ngir ma naan Touba googu loolu barki démb la sëñ blaat ba mu koy nettali yàggut audio la Touba googu yi tey nekk presque première ville wala deuxième ville garab garaaw capital bi donc sëñ Mouhamadou Moustapha moomee kër googu ab taalibeem gi nekk mbuur benn taalibeem moo ko joxoon addiya sëñ fàllu Mbacke ab vidéo la bi muy ñettali naan ci yéen jolof la ñu toog ñettali bi yaatu na lool waaye bu sëñ Fallou gën a wér mu ne aw ma doom mën sëñ Touba aw ma mag aw ma nijaay du ma mag yi du ma bàyyi kenn du ma nijaay kenn du ma magi kenn fekk moom moo fa nekkoon sëñ Masam sëñ Masamba sëñ Mouhamadou Safa ak sëñ ma sëñ ma Roqaye Bousso juma juruma. du ma mag kenn du mën a jaayee ne kenn daal ne man taalibe laa am man sëñ fa man sëñ Tuubaa sëñ Fàllu Mbàkke koy nettali toogaat njaareem si jataay ñi saaliw mii sama dooma sëñ Mouhamadou Safa loolee mu dégg ko gis ni sëñ saaliw dinga dégg ñu naan sëñ saaliw borom buur mm-hmm. waaw sëñ saaliw loolu xam naa jataay bi dana gàtt mm-hmm. waaye li sëñ Béthio wax si mbuur googee tey ak la ko wër la fa sëñ saaliw def magi mbuur yi boo leen laajee mbuur benn milieu bu hostile la woon sëñ bee cay nettali boo fa masaan génn si Afrique gi ak suñu suñu culture ak suñu tradition ancestrale si croyance yi dëkk la boo xamante ni li ñuy wax jommi dafa yomboon lool bari ay jinne jinne yu bon loolee taxoon ba mbuur nekkoon endroit bu invivable sëñ yu Mbacke moo ko fa jële mhm. Cheikh Béthio nettali na ni école boobu mu dare sa mbuur dal fa si ndigalu sëñ Saaliw benn promotionnaire am boo xamante ni ñoo daan jàngi yoor yoor la génn dajeeg ganaar goo xamante ni ku mas a dajeeg moom faatu ganaar goo xamante ni bu junni cuuj lay àndal mill mille pour cent loolu sëñ Béthio ko nettali maanaam loolu nag indi sëriñ Saaliw ak mbuur sëñ Mouhamad Safa gis ni sëñ Saaliw daa bëgg mbuur mu nekk kër gi dama la koy jaay ñee na sëñ Saliou nag ah loolu ndax dinaa am njëgam mu ne ko déedéet alali àddina de suñuy way jure dañoo toog man sëñ Fallou sëñ Moroxe bu sëñ Massamba mu ni du ma bàyyi kenn du ma may kenn du ma jaay kenn ab taalibe laa am ku jébbul may sa lépp wëlbatikuwaat ni Saliou sama doomaa li may li ma la koy jaay mooy ni ma ñoo bokk bàyyi dégg naa nee nañu suñu xam ne maam Faati mu baax ma suñu maam ja ni ko ah yéen bokk bàyyi di yéen a bokk ñu ko ñoo bokk bàyyi mu ne ko sàllaaw ñoo bokk bàyyi këru sëñ Saaliw gii si mbuur noonu la si noonu la si jote foofee laka ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana kon 17 avril c'est pour l'humanité tout entière sëñ Béthio daf ni woon na doon bis bu international fépp lañu ñu war di ko màggal mm. fu cantaakoon ne borom ndigal woote na ko mm. madina salaam waaye ku man paas ñëw ku ko mënul fa nga nekk fexeel ba bis ba bu yegsee nga taf photo sëñ Béthio woote ber na ña nga nekkal waxtaan ak ñoom si bis bii ndax sëñ Saaliw la mu ko wax la mu sa teg ba mu nekk Mbàkke ndax man naa ko wax mooy war a ni yërmande yàlla la yaatale foofa sëñ Saaliw borom bindee fi yàlla yi kenn ëpp ma si ñoom yërmande ni ànd na ma ak ñëpp du fekk yàlla lu mu yaatal ma koy xatal loolu yëpp wax ma ba ko sëñ Béthio ne Mbàkke ndax mën naa ko wax daf ne ko demal ba sa rajo ba fa ñu koy waxe diggam ak sëñ Saaliw entre parenthèse maa ngi nuyu magu taalibe yi mu ko daan àndal ka daan bind communiqué ya mu koy yebal muy sëñ Ibrahima ko waate di ko nuyoog njabootam sëñ Paap Njaay prési di ñaan mu gudd fant ñoo ko daan fekkee communiqué yi yi mu daan bu bëggee wax dara te ay haut cadre lañu di intellectuel de haut niveau mm-hmm. ay ingénieur gannaaw boo ma doonee administrateur sa jamono ji jafe lool ti ka kay wax day toog naan jàng bu baax xaw ma siin damay wax naan sëñ Béthio boo demee ba di wax rek bëgg loo wax war nga man dem wax leneen sëñ Saali wuy sama sëriñ wala wax lii lii lu yomb loo xamante ne xel mën na koo jàpp waaye Moustapha jóg di dem di télé amoo looy wax lu dul sëñ Saali nee na ku ma gis dem àjjana ku ma xam dem àjjana loolu sëriñ Saali woo ko def te moo bëgg mu wax ko mhm. la sëñ tubaa na nafaxandillahu wa bee yen fam lu war a njariñu àdduna ak àllaaxira sëriñ tubaa ko yor sëñ Saaliw Mbàkke nag li mu def Cheikh Béthio te loolu benn la si ba mu ko nee Mbàkke ndax mën naa ko wax ak senegal gii mu nekk ko demal ba sa waxukaay ba keroog RTS la dem kii ndeysaan bëggoon ko lool kunti kunti bi ba Bachir Kunta moom la fa fekk ak benn gendarme ni damay wax ñu ubbil ko rajo yi ci RTS de télévision d'État ba tey jii boo fa demee di wax la ngay wax daañu seet lan la baat na tax mu ñu damay wax ñu ne ko bismillah mu ne waa Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sama sanga ba Serigne Sall de daa defati lu rëy nee na man Cheikh Béthio bis tey ku ma gis dem àjjana ku ma xam dem àjjana wasalaamualeykum nee na ko ku jébbalu si yow am ngërëmal yàlla loolu la 4 novembre 2003 la sa daaru salaam falaay laay duggee si woote bii ñuy woote le set le 8 ak le 9 mars. ndax ka ko fekkee bokk na si ñooy waxtaane bis ba muy Abdallah Fahmi ab tunisien bu ñëpp xamoon ci wetu sëñ Béthio te ñëpp xam kook sëñ Mourtala Mbacké bis yooyu daaw lañ ko initié tuddee ko rendez-vous spirituel mooy waxtaane yàlla waxtaane diine nag boo koy waxtaane yàllaa ko feeñal si yonent yi diine yonent yàlla Moussa Ibrahima yonent yi salaam indi diine lislaam waaye waxtaana yàlla leneen la bis boobu dañu fay waxtaane mbirum yàlla waxtaane fa mbirum sëriñ ndax Sénégal sëñ Moustapha surtout jamono yi ñu toll boo nee sëriñ c'est un terme fourre-tout une notion galvaudée un mot du moins boo nee sëriñ ñu baax ñi ñi ko ñi bari na xeeti sëriñ sëriñ buy jàngale alxuraan sëriñ buy ñaan way jur sëriñ la maa ngi la koy wax di la dëggal lu baax sëriñ bu lay jàngal philosophie oustaz maître sëriñ bii ñaan kii listixaar kii gisaane ñëpp baax na waaye lii sans risque de me tromper mën naa ni bu ñu nee sëriñ jamono ji ñi si ëpp daanaka booy xool kuy wax si football match bi ñaata ñaata la làmb ji way daan kay ka daan day rëppeeloo benn tànk ak ñaar lu baax la waaye sëriñ bu sëriñ tubaay wax ti waral clip bii nga xamante ni daanaka bokk na si li mu fi indi ma koy defee communication ci bis bi ñu jëm muy le 7 mars le huit mars ak le 9 mars sëriñ boobee daañu ko fa waxtaane ku mel ni sëñ Fallou Jatara ñëpp xamoon ka doon jëwriñu sëñ Saliou Ngéejaan sëñ Abdoulaat Mbacké ñëpp xamoon ko si wetu Cheikh Béthio ak yeneen i waxtaankat ay intellectuel di ay inspecteur mën naa cité ku mel ni Bayo Daouda di ay sociologue di ay taalibeem bis boobu dañ ko daan def bi mu fi ne di woote di yëg le 17 avril jàpp nañ ko le 7 le 8 surtout nag ajjuma mooy bis bi nga xamante ni si la lépp di xew ndax jeudi ba daara la ñuy def waxtaane daara ndax ni mu ko waxee rek daara yi nga xamante ni dama fay dem di leen fekki ñoom laay invité daara muy ñaari waxtu yoo xamante ni notion daara la ñuy waxtaane ndax daara da am da am mm-hmm. mel ni sëñ Pape Ndiaye prési di jëwriñu HLM bokkoon si ñi sëñ Saliou jëkk a booleeg Cheikh Béthio tudde leen daara xamal leen ni sëñ Tuubaa ay daara la daan samp ak na mu sampee woon daara ja ak ñam fu jëkk yebal la mu leen joxoon daañ ko fa waxtaane ndax sëñ Béthio dafa dafa bëggoon ñu fonk daara yi lool loolu 18 lay doon ba 22 heures daara yi mel ni Grand Médine njabootu Cheikh Béthio am na lu ñuy wax jaay njureel dama leen si invité moom mii sëñ xaadim bopp ak waa Wakam ak ñu bare ajjuma nag bu ñu xëyee dañuy wàcc kaamil di durus xasaayit dinañu togg ndékki bu mi di jotee ñu commencé yëkkati xasaayit yi joxe añ yi ndax bernde cant la bernde bu ñu jullee jumaa rek nag 15 heures ñu tàmbali waxtaan wi ay thèmes lay doon yoo xamante ni sous form de panel ku mel ni sëñ Saliou Thioune fàtte woon naa ko maanaam animateur principal di taalibe Serigne Béthio di professeur d'université docteur la ak sëñ Saliou Joseph bi nekk ci benn télé moom it taalibe Serigne Béthio la di ko xam bokk nañ ci ñi koy animé ak ñeneen ñu ma tuddul ñu bare kel day fattu ak ay taalif taalif yi ñu daan def si Serigne Béthio ñu bari daañ ñëw ña daan def invité naa leen ngeen ñu ñëw loolee ñu daan dund ak moom wéy di ko dund nag ba tey si wetu taawam bi bis boobu day spécial ngir loolee bu ñuy waxtaan nag thème yi bu si ne une heure une heure ba dix-huit cant gi nag wéy sëriñ bi ñëw ñu wéyale cant gi ba karamu ñaan maanaam si siyaaru ajuma yi ñu daan def sëñ Béthio daan dem Thiès daan dem Ndar fu ne di déca délocaliser cant gi ajuma loolee lépp dañ koy dëxëñte bis ba kon ñu ngi si woo ñëpp waxtaane waale it si bisam bii di dix-sept avril samedi nag bisu soppe lay doon maanaam ndax cantu sambi day am à partir de vingt deux heures waaye yendu lay doon yendu boo xamante ni fa nañ fay ne ndax way yi ngay wax fanweeri kaset ak ñett la te ndeysaan werekaan yëpp dañu fay ñëw yow mii woo naa la fa mm-hmm. waaw gaa yëpp bàyyiwu ma kenn dañu fay way waaye ñi nga xamante ni fu ñu toll dañuy bëgg eh, déglu way yi ku nekk naan wayal bii wayal bi xëy na daañu mën am jotu bu ñu mënul way trente-deux album yëpp it leeral koy si ndigalu sëriñ bi ñu way la maximum. vraiment ñu taxaw si trente-deux album <laughs> xam-xam gi fu muy jógee ba tax ngay bind ndax bokk nga si ñoo waykat yoo xam ne defe naa ni yow képp koot la sëriñ Saliou di déglu si si ñuy way si cant gi. Euh, bokk na si koo xam ni si moom la waykatu cant gi di rootee maanaam su ma limee damay juum mais dama koy tàmbalee si Mouhamed Niang fekk na ma foo xam ni benn baas sëriñ bi di wax euh, Ibrahima Diagne mii war a way ñu jox Mouhamed Niang mu war a way sëriñ bi Ibrahima Mouhamed Niang jóg di way di way way Ibrahima Diagne ba sëriñ bi jël micro bi ne ko yow soo wayee wayu kii kii su jógee lan lay way xam nga loolu yëpp fekk nañ fekk nañ si cant gi euh, Mouhamed Ibrahima xam-xam gi way noo koy bindee ak nan nan nan la lay dikkee parce que 32 album moom nekkul lu ndaw wax dëgg yàlla. ndeysaan wax nga dëgg Mouhamed Niang. waaw waaw maa nuyuwaale en même temps di ko woo. Mm-hmm. waaw si bisu sëñ Saliou boobu bisu Cheikh Béthio jàmbaar la. Mm-hmm. waaw moom ndax bis boobu li ma si am jàngatit sëñ Béthio moom moo ko ubbi. Mm-hmm. moo la ubbi yow ubbi ñeneen man naa lim ñu bare. kii day wax di taw fiix ak. papa gi médaal di jaaji. bindkat yi bari nañu ma nu mbécc yaakaar seen na bari yooyu sëñ Béthio way nag bu ñuy waxante rek mooy rendre à César ce qui appartient à César gaa yi yàgg nañu way si diine mm-hmm. waaye way si diine nag way si lislaam way mbirum yàlla Cheikh Béthio bi mu ñëwee si lay yeesaat peq sëñ Saliou jaar si moom si lay tontoo sa question bi man sëñ Saliou moom ma wayloo mm-hmm. ti ti du ma jóomit ndax way question bi may laaj ñu bari dañ ma koy laaj mm-hmm. maak yow yem <laughs> sëñ Moussa indi rek sama référence si taalife mi def ni aw ma maqaamam di la woo sëñ Tuubaa lay wax waaye murit yi ñoo ma woo ne tawatal te bu ñu woo ci téere bi ñuy wax xarnu bi saw làmmiñ yow musaaka mooy woo xarnu bi tey jii ma wax ba ni taret ndax yaa ma def interprète yaa fa ba xam-xam ni yëreet way dina am yu ma fi acapella yoo xamante ni boo koy déglu man mii danaa ko bind ba pare duma xam ne moo ko bind lu mm-hmm. ndax si am na si yooyu moom si boppam moom Serigne Saliou waxuma Serigne Béthio si gént si nelaw ndax gént lu si bari Serigne Béthio bari na si yoo xamante ni euh, wax naa rañaan gi diggam ak Serigne Saliou waaw rañaan mooy yoon woo xamante ni ba yàlla ne euh, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nit dafiy jóge rek ñu jàpp ni ku fi dee lañ koy wax alors que ba ñu nekkee sa àjjana maam Adama Iblis di ko manigancé ba mu nekk ko bul laal garab ga mu laal ko yàlla ni wàcc leen bi ñu wàccee dañu war a delluwaat fa yàlla dellu googee mooy incha si yàlla lañ jóge si yàlla la ñuy dellu fii si kaw suuf nga war a liggéey lu doy sëkk ba sa bàmmeel leer boo amee ambition nag nga fexe ba balaa nga fiy jóge delluwaat fa yàlla dellu fa yàlla googee da ngay am cheikhul murabbi sëriñ bu mat sëriñ boobu mu naan man talabal wusulalil jalili si ma maxaali ko niiraan falyatasim bi sunnati rasuli bi an yulazima mutiyan laa yamil fii zahirin wa baatin an sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil xaada donc inna lillahi wa naa ilayhi raji'un si kaw suuf gii da ngay wër sëriñ bu mat sëriñ tubaa na dellu gi nag man ngaa jaar si werd daañ ko fa waxtaane entre werd ak sëriñ bu mat sëriñ ay waxtaankat yu bare bu ñu wax sëñ Basiiru Fay di sëñ Saali ba sëñ Murtala ku baax ci bari xam-xam dama ko fàtte ak ñeneen donc dellu fa yàlla gi faw sëñ tubaa na da ngay wut sëriñ bu mat sëriñ te biir téere boobu lay leeree leerale ba tey nii fa kullu man xab la wusuule tësal walam yu rabbihi mu rabbin xat kamul koo xamee ne nga bëgg a dem fa yàlla te amoo seexul mu rabbi boo xamante ni daa mat sëkk bu la yóbbu nee yaa ngi xuus si géeju alkami seytaani moo lay wamat yal nañ si yàlla musal donc sëriñ Saaliw loolu sëriñ Moussa ko wax yaa fa xam-xam ni yëreet moo moo jël sëñ Béthio seexal ka boole kaaki jumtukaay man dama bokk ci jumtukaay yi dama ànd ak Cheikh Béthio it ba ci kanamam Sëñ Moustapha moo ko koy wax ndax baatu werekaan gi ndeysaan ñu bari ñu ngi koy tudd ndax dañ ko jàppe waykat rek waaye yemul ci way set da ngay way waaye yàlla kuy woy baatin way xam-xam way wu delloo nit ñi ci yàlla sëñ Moussa yi dafa naan sëñ Moussa Ka mii seen werekaan wax na ko waaye man dañu ànd ba sëñ Saliou mu koy wax ba di pré naan ko Mbàkke seen werekaan wi donc loolu daa nekk loo xamante ni mbirum Serigne Saliou te daa yàgg nag ba may nekk di jàng di tuut tànk bëggoon naa lool Serigne Moussa di ko déglu di ko xarnu bi nattoo di kerkeraan lawliyaa bi ak yu bare boroomam mu mel ni dama xëy rek nii di way way yi ma koy déglu wax nga ko ba yëkkati si ay kàddu yëkkati naa ko it si kanamam ñetti yoon xay ga njurul mooy ziar boo xamante ni ñaari université yi ñoo àndoon daje fa mu ne ma yëkkatil mu toog nee daanaka onze heures ba dix-sept ma dekkan di ndànk borom njurul bii ma lay wax rajant naa ko si kanamam moom Serigne Saliou am na si way yoo xamante ni ñi doon ñaan giseek yàlla benn tàkkusaan la ñu toog ñu siyaar mu seggalu kafe ma toog ne ñoom ñaar ñuy wax ma toog di bind foofu laa ko binde ba mu mat donc way yi ba tey nii lay ñëwee dama wax 32 album ndax way yi xam nga ko enregistré eh, daan na am bi mu fii ne jot gi mooy bu ñëwee rek si saa si. nga enregistré nga enregistré waaye léegi ni mu laaj. Mhm. ak jot gi. Mhm. ci manque yi tuubal. Mhm. ndax moo daan bëgg saa su ne. soo fentee rek defal ko ko si lu leer nañ. ndax man ay dem di enregistré ak yooyu sëñ Béthio moom ma si dugal suñ Pape Ndiaye mii may wax bi may way benn bis bisimilah rahmaani rahim bii si la taxaw bis. maire moo daal ni lii de na dem si kaset si band moom moo jóg ndeysaan daal di sasu ñi dana dem si band salaa tàmbalee saa yi ma wayee mu ni ma ndax am na band moo ma yóbbu si lu ma woy dem enregistré studio ngir moom salaa mhm. demee ba waaye daanaka de yooyu boo ñëwoon sama kër wala sama téléphone bii air yi nii lay ñëwee te bu si ñëw daanaka day gàccal lu weesoon loolee nag day feeñ si ñu bare mhm. Mouhamed Niang mii ngay wax boo koy déglu ci loolu wax dëgg yàlla ak ñu bari nag mhm. ndax sëñ Béthio moo digle woon ñu gëstu man li mu wóor mooy sëñ Béthio wax jooju ngay wax mhm. dimbali na ko ba mu si sooboo boo dégloo wayam di nga xam ni mhm. du ak âge du du rek way nii waaw jàmbaar la boo jëloon ku mel ni mën ñu mëndu méccaam waaw ku kuy way la maanaam ndax sëñ Béthio ko wax gëstu gis nga sëñ Saliou moo laaj ndaw ñi ñu jox leen ma ndaw ñi ma def si ñoom la sëñ Tuubaa daan def sa mag ña boo ko bëggee te mu sincère rek te bëgg ko ñu bari dañ ma koy woo damaa bëgg a way damaa bëgg mel ni wax wa wax man la da ngay sellal maanaam def ko yitte nag. Mhm. bañ rek salaamaaleykum bëgg daal di doon star. Mhm. am benn way rek daal di commencé wër télé yi. Mhm. maanaam def sëriñ bi muy sa yitte ti nga diir ko. bu yàggee rek dana la wayloo. ngay commencé di wax xar-xar daj. donc way yi noonu la demee. mu koy déglu baa maa ngi nuyu au passage sëñ góor a jéy moo ko tegal bande ba. teg na sa borom mu njëkk boobu teg sa borom njurul basi ak dumaas yooyu amul woon tëgg ti dàqoon foofu nag te mu digaloon ma ni ma naa ko delloo si waat moom sëñ Béthio ndax daa mel na xam-xam ya sa ne daa doy sëkk mate si li ñu bëgg a xam si Serigne Sall jërëjëf Ibrahima waaw jërëjëf sànq ñu ngi may signalé ni ma daanaka waxtu yu jeet na te ah, loolu gaaw na di dañoo dañoo war a def journal léegi <laughs> ñu bàyyi la nga tàggatoo rek ah, loolu moom gaaw na di <laughs> moom kay kéemaan dëgg la moom daanaka dañoo war a dem journal léegi sax si kanam incha allah. ndeysaan kon de xam naa ma eh, eh, tàggatoo jël benn rek si deux une si trente léegi da bàyyi sëñ Ibrahima tàggatoo. waaw sëñ Xaadim sëñ Xaadim. waaw ay naa ne ñun eh, émission bi da xaw a gàtt loolu. <laughs> moom day. Pape Maguette est doo ko yokkaat. ah Pape Maguette <laughs> ñu du tàggatoo te du ñu wax suñu bis bi. 17 hmm. avril. waaw ndax bis la boo xam ni daa war a lépp. mooy bis bi sëriñ Saliou daje woon ak Cheikh Béthio te mu waral lépp te tey jii ci ginnaaw Serigne Béthio ci sayr képp kuy mbindeef nga war a sant sëriñ Saliou ci bis boobu ndax daje boobu sëriñ Saliou daje woon ak moom ñun ñii moonu dimbali. ndax ay ndaw lañu nekk ndakaaru amaana Serigne Saliou bëggoon noo dimbali képp moo taxoon mu defar Serigne Béthio fekki ko taset ci toolu baayam def li muy def ci moom mm-hmm. loolu nag moo waral tey jii man ak samay moroom nekk ci cant gi noppal Serigne Touba ndax Serigne Saliou da ko ni digal naa leen dina jébbul si moom te di ko tuddee doom ku ko def dina ma noppal fii ak fa nu jëm te dina def lu ma neex ànd gi ngeen ànd ak sëñ Béthio sama ndimbal la sama nooflaay la kon tey jii ñun cantaakoon boo xam ne dëggal nga yaa ngi tegu ci ndigalu sëriñ Béthio yow def nga loo xam ne nooflaayu sëñ taxa Mbacké la yow cantaakoon doo bokk ci ñii sëñ Muntaxa di di di génn tele wala di digle nañu bàyyi lii nañu bàyyi lee. dëgg la ñun sëñ Béthio danoo yar cib ndigal yar ñu cib diine yar ñu ci fànn bépp. Mm-hmm. ni mu ko waxee maanaam moo wax la ni ñëpp war a sant sëñ Béthio ci bis bii di di 17 avril. Mm-hmm. sëñ Béthio da doon toog euh, Touba une semaine. ajjuma mu ñëw Mermoz élèves yi di indi seen not yi mu leen di sonjaat ci jàngum école loo xam ne suñu waajur yi moo ko waroon def. Mm-hmm. ñenn ñi moom moo leen doon fayal école. ba tey jii ñu réussir ci mbirum àdduna ñenn ñi moo leen may soxna man ba may am vingt deux ans la ma may soxna man am naa doom ju tudd Serigne Saliou am naa doom ju tudd Maam Bousso amoon naa doom ju tudd Soxna Faati Jaxate ci âge bu mel nii loolu c'est pas évident waaye kenn Serigne Touba ji da sëñ la sëñ Touba di wane ci sëñ Béthio maanaam wax gi mu ko wax def naa ci yow loolu ñu naan ab cheikh mu ne ko lu di ab cheikh mu ne ko doon doo mën a xam jàppal ni sama diggante ak yow ñaari ndabi ndox di tànk ci lii di sotti ci lii mënoo ci xam lu tuuti tuuti toq liy toq ci diggante bi suñ Béthio yaay man maa yow jàpp ci yow muy dëgg jàpp ci man tey jii nag sëñ Béthio ñëpp rëccu nañu nanu nañu nekkee woon ak moom ndax wax gi nga xam ne waxoon na ko mhm. tey jii ñëpp nga koy échec mhm. yi ñàkkoon a xam moo tax waaye Serigne Saliou waxoon na ne ku dul yàlla sama borom du la xam mhm. ñun nag suñu tawféex mooy Serigne Saliou boole gën boole ak moom moo tax bisam bii ñun man jëwrin ak képp cantaakoon ak sama mbokk universel yi ñëpp ñu ngi koy waaj di ko fas yéene ànd ak kenn fi bàyyi muy Serigne Saliou Digal Thioune. jërëjëf barki démb nee na ma. man de ren jii 17 avril bëgg naa see def lu mu mës a def ci 17 avril ndax bis bi daa doon bis bu rëy ndax bis bi day bisu sëñ Béthio. studio universel wax na ko moom mii moo nekkoon Gaston Berger. sëñ Béthio doo doon dem Gaston Berger di fa def ñaari weer wala weer di di di tàggat nit ñi ci liggéeyal Serigne Touba di waxtaan ak nit ñi ci Serigne Saliou kooku amuñu payam. ñun cantaakoon amuñu payam. képp kuy mindee fit amoo payam. Mhm. ndax bu doon ak moom méttitu dëkk bii dina gën a métti. moom rek a du dimbali. ba tax na fas yéene noo ànd ak 17 avril bi. sunu sëriñ sëriñ Saalum digal cuun mi ngi koy waaj fas yéene ko def Madinatu Salaam. fas yéene rey ay nag yu bari ak ay gileem ak ay xar ak ay ginaar. ñi mhm. ko sëriñ Saalum diglee ci ab cant. berne ren di togg ñoom yu neex ta bari. Mhm. di ko joxe amul xëj ak seen. sëriñ Saalum digal nee na. dina ko def ba buntu sali buntu biir Madinatu Salaam dëkk Mbuur yëpp fas yéene na fa teg ay mbana sant Serigne Saliou ci bis bii di 17 avril. jërëjëf ñoo ngi ñaan nag mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. jërëjëf jërëjëf moom Serigne Saliou Ndigal Thioune ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mooy suñu xalifa di xalifa cantaakon yëpp. moom ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, li mu bëgg moo ko xam euh, yàlla na ko sëriñ bi defal euh, moo rakkam yu baax yëpp moom Seydina sëriñ Saliou Thioune suñu sëriñ ñu koy bu baax suñu yaay soxna Aysa moom ñu koy ñaanal borom bi bàyyi ko fi bu baax baax moo suñu yaay soxna Mboose bu baax ak njaboot gépp jëwriñ Pape Moussa authentique siyaar nañ la lu baax moom bi nga xam ne mooy yor ci leen communication sëriñ bi ñu ngi koy siyaare bu baax a baax bàyyi Mame Moussa maa ngi lay siyaare bu baax jëwriñ Pape Moussa authentique di siyaare sama waaju bu baax baax Euh, ki nga xam ni maam laa tuddoon sànq si biir yi wax ndax Ibrahima moom mooy tëj ñu yëkkati jotaay bi ndax dañuy naa léegi nii euh, ki nga xam ni moom laa tuddoon sànq si biir waxtaan wi muy euh, ki nga xam ni moo nekk foofu sa États-Unis sëñ Ablaye Meng maa ngi lay jaare bu baax sama waay bopp ji nee naa borom borom borom baax la ku baax la ku fonk nit ku yiw la ku bëgg nit taalibe Serif Alioune Maane Ndiaye bi jaare naa la bu baax jox la sa wàcc waay bu baax Cheikh Mouhamadul Kabine Ndoye maa ngi lay jaare bopp ji jox naa sa wàccuwaay bu baax moom it koppar yu bëri la ma yónnee joxoon na moo joxoon ma ko sa bàjjen moom it kon kooku ñu ngi koy siyaare jox ko wàccuwaayam bu baax baax Cheikh Mouhamadou Kabir di la ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd wér Pa Maguette Mayel mu tàggatoo rek ñu tëj ngeen dem journal Ibrahima bismillah waaw kon eh, bi daa gaaw lool man tàmbalee gu ma sax wax de <laughs> damaa bëgg nga ñëwaat <laughs> ñëwaat ñu waxtaanee waat l'islam bu baax waaw loolu de moom la koy mat la waa mm-hmm. ah, waaw waaye nag ndokk ba fi sëñ Xaadim universel nekkee mm-hmm. Eh, waaw ñu ngi gërëm di la sant yow vraiment liggéey bu rafet bi ngay def di di di di di di bëgg loolu di woo ñëpp nag le 7 ak le 8 mars. 8 mhm. mars nag précision bi mooy dafa tombé journée de la femme. Mhm. ñu bëgg rendre hommage eh, à Mame Diarra Bousso. waaw kooku une référence à toute échelle waaw bisu jigéen ñi la mooy ubbi panel bi en fait. Mhm. waaw def si vraiment. surtout liggéey bi sëñ bi ci def ñi mu tuddee maam Jaara ak yi bi ñu si woo ñëpp particulièrement waa Gànjool fa ma dëkk waa Ndar waaw waa Gàmbi gi ma jógee barki démb vendredi comme ni mu koy waxee waaw di la si woo waaw di gërëm techniciens yi nga àndal àllu sama xarit mm-hmm. ak journaliste yeeg mm-hmm. Alassane ak ñëpp rek waaw may mën a ndóor ñu ngi koy siyaar mm-hmm. jotal li ko suñu nuyoo waaw di di nuyu waat bu baax euh, sëñ Saliou ndigal Thioune waaw di ko ñaanal mu yàgg fii ak ay waaw yaatu na te it liggéey Cheikh Béthio Bayène bii day waaw moom day yàlla na ko yàlla gën a kattanal ndax ma ngi siy def lu mu mën ak mu ak lu mu mënul te xel dal na waaw yàlla na fi yàgg ànd ak sangam Serigne Cheikh Mbacke Saliou di nuyu sama jëwriñ Ousmane Fall waa université waa GIE waaw di nuyu waa UGB waaw di nuyu waa Mbour Madina Salaam mm-hmm. euh, di ñaan seen télé bii Eh, liggéey bi ngeen di liggéey surtout lu jëm si wàllu diine ji ak yaatal nga xamante ne ñëpp ngeen fi yaatal di ñaseen du mudir di xaadir di laayeen yàlla na sëriñ bi dogal moom mu yaatal lool sang Cheikh Béthio sëriñ Saliou Mbàkke teeral na la wallaay teraanga masul rëy ba daab mbooloo mi topp la li di moomel marchandise sum yàlla borom bi la borom si maamu alwara ti na sédd la daana boyal daana seexal yow la féexal ni la yaay man maay yow moo masul feeñ li yes peq la faw ñu wax ko taarix daa masul indi li la sëriñ Saaliw defal ku xam wax ñu ni fenn la ña demoon daara ñoom la daan di bu mu gandi la njàngul ñooña lay defar murit yiwel jox la sañse ak man-man ak a la joxe jël jox la ku yemul si sëriñ saaliw mbiram lu yéemi la yemul si saaliw mbiram lu yéemi la waroon na ma way ba way la man lii ma bëgg way